Nous sommes aujourd'hui ici à euh, euh la maison historique de Mamcher Ibrahim Fall, où il a vécu avant de rejoindre Cheikh Ahmed Bamba Khadim à Djourbel. Aujourd'hui, euh, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir M. Ali Haïdar, de recevoir M. Ali, Ali Haïdar, le directeur général de l'Agence euh, sénégalaise pour la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Euh, euh, pourquoi cette visite Parce que M. Sekindjili Ami Kolefal a l'indigal, c'est-à-dire la bénédiction de, du Khalif général des Baïfal, Cheikh fal de rénover, de reverdir, de reboiser cette maison historique. C'est à ce moment-là que Sindjili a eu l'idée de planter des cocotiers. Comme vous le euh, constatez, les cocotiers ont deux vertus principales. La première, c'est que ce sont des arbres ombragés, mais l'autre aussi sont des arbres économiques. C'est la raison pour laquelle, après avoir contacté Michel euh, Ali Haïdar, que nous remercions d'avance, a eu l'amabilité de venir aujourd'hui avec ses arbres. Donc, euh, pour le moment, monsieur Ali Haïdar a déjà donné 100 pieds qu'on a déjà plantés en dehors de cette maison. Aujourd'hui, il est revenu avec tout son staff, avec encore un appui de 100 cocotiers, au nom du, euh, au nom du Khalif général euh, des Baïfal, représenté ici par M. Djili Amikolefal, nous lui remercions infiniment. Donc je, je vais lui donner la parole pour qu'il qu puisse nous expliquer effectivement les, euh, les raisons de, ce, de, sa visite lui aussi. Oui, exactement. Comme vous le savez bien, le, le, le mouridisme, euh, y a, la doctrine du mouridisme est basée sur le Ndigal et que le, euh, le Serindil Amikole

yàggal ko fi tam ànd ak wér ñaan di ko nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom yàggal ko fi tam ànd ak wér di santaat yàlla nag ci jotaay bii ak ndigal li nga xam ni Serigne seex Jëmb Fall xalifa général di Baye Fall toogal fi maam Cheikh Ibrahima Fall moom ma si jox ndigal ma sàkkoon ndigal li si moom nag jëmbat fi ay garabi koko te monsieur le ministre Ali Aydar ñëwoon fi ànd ak délégation bu am solo indi fi addiyam téeméeri koko barkeeloo ko si liggéey bi lu jiitu loolu nag indi woon na fi téeméeri ko muy ñaar téeméeri koko fi mu ne moom nag ñu ngi koy sant bu baax si turu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ñaan ñii mu àndalit suñu borom dëgëral leen ñu amaan mbégte lool nag kër gii nag ñu taxaw moo doon kër Cheikh Ibrahima Fall bi ko sëriñ bi wooyee mu jógee fi dem njaareem fii la bàyyi ko woon muy kër gu am solo ku fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall yu am solo yëpp dinañ amal fii si merci je suis très honoré d'être ici dans cette maison maison de divinité en réalité où des esprits saints ont ont bâti quelque chose de très noble je suis honoré d'être ici et aussi euh, d'accompagner ce grand projet du marabout qui veut planter 1313 cocotiers dans ce, dans ce lieu. Et si j'ai apporté 100 premiers cocos, c'était pour voir le suivi. Mais j'étais très satisfait quand j'ai vu qu'ils s'occupaient du suivi. Je suis revenu avec 100 autres cocotiers et je ne m'arrêterai que quand ensemble nous aurons planté des milliers et des milliers de cocotiers partout au Sénégal avec leur aide, avec leur appui. Parce que, vous savez, euh, le mouridisme est un concept de travail et nous allons ensemble travailler pour reverdir notre pays, le Sénégal, de sorte à ce que, de sorte à ce que nos enfants puissent profiter de ces richesses parce que vous savez, on plante un cocotier, il va produire dans 5 ans 200 fruits et il va vivre 100 ans pendant lesquels tous les ans il va vous donner 200 fruits. Si vous en avez 1000, c'est 200 000 fruits. Hmm. le vendez à 100 francs, c'est millions. Donc, c'est une richesse économique. C'est une richesse pour la terre, c'est une richesse pour les populations parce qu'ils peuvent le manger. Et comme on est dans un, un, moment très dur de coronavirus, il faut que nous nous occupions de reverdir notre pays pour que l'agriculture soit saine, pour que l'élevage soit sain, parce que tout part de l'arbre. Alors je suis honoré d'être ici, accompagné par le grand marabout des Baïfal. On sait que ce sont des gens averti des gens convaincus et quand euh, il a donné son ndigal je sais que ces arbres vont vivre et qu'ensemble nous allons planter partout au Sénégal waaw sama xol dafa sedd ndax bi ma ñëwee fii ci kër gu tedd gi ànd ak sëriñ bi pour jëmbat garab léegi sëriñ bi bi mu xamee njariñu garab mu ne moom bëgg na fi jëmbat ay junni junni garab mu ne man sama xol dina sedd pour ma ànd ak yow ñu def ko waaye bëgguma mu yem fii dama bëgg ñu ànd tamit ci ndigalam fépp ci Sénégal fi nga xam ne rek war nañ fa jëmbat garab ñun ñëpp ñu ànd jóg jëmbat garab garab dañ koy jëmbat ndax dafa rafet wala dafa indi kër garab lépp lay indi garab mooy indi dund mooy indi bay mi naat jur yi am lu ñu lekk kon waa Sénégal nañ jóg jëmbat garab bu ku nekk jëmbatee garab Sénégal naat xool yi naat ñun ñëpp ñu ànd jëm kanam donc vraiment maa ngi ñaan daal muy garabu corossol muy garabu limon gis nga boo demee Matam benn limon mi ngi jar 100 benn limon boo ko gisee te boo duggee ci biir kër yi doo fa gis garabu limon may loolu man daf may jaaxal ma ne kon naa fa yóbbu limon waaye surtout nañu wax ak nit yi ndax garab jëmbat ko lu yomb la am ko lu yomb la ndax boo boo pàccalee benn limon doom yi nekk ci biir boo ko defee ci mbuus wala ci butéel nga arrosé ko mu nekk garab nga mën ko jëmbat loolu laa bëgg nit yi ànd ak ñul pour ñu def ko fépp ci Sénégal